sama doom feebar bi kat mu ngi law bari na ba jaaxal ñu. loolu waral li nu ñuy tere lépp nanu ko moytu ngir mu abal nu. yéen xale yi su ngeen mënta bañ a génn na fagaru. ndax kat seen wérgu yaram mooy sunu gos. ñun ñëw mën a aar mag ñi. ginnaaw bi ñu aaree sunu bopp. nañu takk maski yi bu ñu waree jege mag yi. te nañu moytu xew yi ak dajaloo bi. feebar baa ngi ci réew mi xamewul mag. te xamewul ndaw waay waay dimbali leen ñu aar leen seen bopp aar mag ñi aar ñëpp ñàkk bii nag mooy sunu kaaraange ndax kaay fagaru moo ma gënal kaay faju message bi ministère de la jeunesse moo leen ko jagleel